waaw salaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateurs yu Zimo TV ñi ngi leen di nuyu ci seen chaîne bu mag bi ñu koy wax Zimo TV euh, tey nag ñu ñëw ak yéen fii ci Kër Massar euh, Parcelles Assainies unité 14 ñu nekk fii ci marché bi ngeen di gis ne fi mu toll nii mi ngi taw waaye ndox mi sonal na waa Parcelles Assainies unité 14 bu ngeen xoolee nii yéenay gis fii ndox mi démb rek la den ñiis ba jeex tàkk te fii aussi tamit am na ay canal gis ngeen marché bi place yi nga xamante ne dafa yàqu aussi tamit bari na fi torop mais nii nga xamante ni la demee tamit nii la wëree presque ndox mi fii nii yëpp gis ngeen kenkaayre bi gis ngeen eh, borom place yi tey jii bu tawee duñu am fu ñu jaar gis ngeen fii noonu la ndox mi continué nag ba dem ba ca kaw vraiment mu doon lu metti lool lool lool lool xam dañuy dugg ci borom kenkaayre bi ñu gis ko waxtaan ak moom tamit ba xam ban la ci am eh, su ko wa rahmatullah waaw sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax waaw ñu gis ne tamit fii ngeen nekk ndox mi bari na lool en même temps bu tawee dafa mel ne da ngeen di am ay jafe-jafe. aha ko dundee. waaw métti mhm. na lool lool métti mhm. na ndox mi day day taxaw benn place. Mhm. na canal mais canal daal doxul dara. ah canal yi doxul doxul mais lan moo waral canal yi doxul. ah xëy na liggéey liggéey bi la wala day fàtte xam naa laa dégg rek. waaw. loolu daal wax dëgg doxul te bii bu xasee taw moom. te ñun fi lañ am. waaw ñun fi lañ am fi lañ dundee suñu njaboot lépp ñu am fi lañ ko mën a kon ndax daf ñu fi leen daal. am ñu ñu dimbale leen. dëgg la waaw loolu daal la ñuy sàkku daal fi ñu sàkku ñu daal ñu fi leen daal. macha allah métti na trop wax dëgg métti na lool. ndax bu xasee taw moom ñu mën di liggéey. ñu mën a da ngeen taxaw benn xalaat ñu ndox mi ñu mel nii. waaw fii ay at at yàgg na fi rek. kon dañ leen di mën a jàpp daal ñu mën di wax dëgg dëgg la a ah, jërëjëf sëñ bi dégg nañ kàddu yi kon xam naa ne autorités yi nga xamante ñoo nekk Kër Massar dinañ ci jot ndax mett na lool nit ku nekk fi nga xamante ne fa ngay jëlee sa wërsëg di ci yóbbu sa njaboot di leen ci dundal en même temps aussi tamit bëgg nga mu doon foo xamante ne boo fa nekkee day nekk fu jaar yoon macha allah kon jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax nga fàttali ñu tur bi euh, maam góor lañ ko wax maam waaw jërëjëf maam goor waaw kon téléspectateurs yu Zimo TV yéen a ngi ko déggee noonu ba léegi ndox mi mi ngi gën a sotti dégg ngeen maam góor li nga xamante ne moom la wax kon mi ngi sàkk ci autorité yi tamit ñu dimbale ñu ci li nga xamante ne mooy canal yi parce que bu ngeen gisee fii ngeen di gis ndox mi taaje yëpp ay rigol ñoo fi aw ay canalisation la gis ngeen ko nii nii lépp ay rigol moo fi jaar euh, bu ngeen xoolee waaw ah? am na ci xalaat waaw kon su ko defee ah moom it ñu jël ko waaw sëñ bi ñu ngi lay nuyu waaw yow tamit euh, ban xalaat nga am ci ndox mi fii bu tawee waaw ndox mi de moom wax bi di liggéey ndox la waaw waaw gis ngeen kankaay bi li la vraiment ndox la vraiment métti na lool bu ñu bëggee génn sax dañu am problème pour génn lool gis nga nga ni mel kenn du la wax fii ni mu mel. mais ñaan autorité autorité yi nga xam te ni tey jii ñoom ñoo nekk ci wàllu nguur bi. Mhm. pour mën a dimbali fii nii ci unité 14. waaw mu dimbali ñu. Mhm. parce que fi mu toll nii amul dara mën a jaar sax amul. Mhm. ndeysaan ku ñu mën a dimbali la moom li na trop. métti na trop wax dëgg yàlla. macha allah jërëjëf métti na trop. waaw mbedd mi waaw. waaw xam ngeen ne gis ngeen ko dégg nga gis ngeen mbedd mi xool leen mbedd mi ni mu mel yéen a gis fi mu toll nii gis ngeen ndox mi vraiment lii métti na lool métti na lool xool leen marché bi lii lépp daanaka dafa yàqu vraiment lii lépp ci marché bi la bokk fi mu toll nii kon autorité yi ñu ngi leen ci ñaan bu baax a baax ñu defal ñu ci ndimbal parce que ñun te euh, téléspectateur Zimo TV ñoo ñu fi tax toog bu ngeen gisee nii ci biir ndox mi dañuy xuus yor suñu parasol ak suñu caméra ñëw di wër euh, kon métti na lool kon gars yi lii la leen indiloon ci seen tey jii Zimo TV di leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allahu rabbi ah jërë ngeen jëf